maa ngi nuyu mbokki journaliste yi fi teew yëpp di nuyu waa àddina di nuyu nuyu bu tedd xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér euh, sunu woote tey bi nag mu ngi soqikoo ci euh, lii ñëpp xam muy euh, liñ doon atte diggante sëriñ bi ak ay taalubeem eh, ci tribunalu Mbuur atte bi eh, ñun ñëpp ñoo ko xamandoo xam ngeen li mu jur mooy dañ ni dañoo tëj sëriñ bi eh, fukki ati kaso muy loo xam ni ñun ak ak ak waa bokki taalibe yëpp ak njabootam ñu jàpp ni mbir la moo xam ni dañoo def li leen neex ndax sëriñ bi bi ñu laata ñuy enrôler dossier bi fekk na ko mu nekk bitim réew di faju euh, am tawat nekk ak ay docteuram ñu ngi saju aw yaram moom booba ba tey bi ñu yëgee ni dañoo war a def procès bi ay docteuram euh, yónnee dossier médical boo xam ni day wane ni sëriñ bi mënula ñëw ci boobu procès waaye dossier médical boobu mel na ni teniruñ ci compte nangu luñ ko ko ba tax ñu def li ñu def mooy juger ko par contumace amuloon respecté wuñu ay droit am respecté ñu àqam ci wàllu procès bu équitable mel na ni nag tawatam soosu ko tax mënula dellusiwaat ci réew mi euh, tawat soosu ca bañ ko jëkkee jàpp la la la la la ko amaloon ndax ñu ngi koy fàttaliku dañoo lankoon mu génn réew mi dem faju ci téye nañ ko fi lu mat juróom benn weer wala juróom-ñett su juumul ay avocat am sàkku na sàkku woon nañu ñu bàyyi ko mu dem bitim réew faju ci ca tawat soosa la jóge bu fii may wax ak yéen mel na ni tawat soosu bàyyiwu ko kon bu ñu dee doxal dëgg waroon nañu ko mën a may mu faju ba wér dikk ñu def jugement bi mu am ànd ak ay défense défense waaye loolu mayuñu ko ko dañoo def li leen neex jàpp nañ ni nag euh, mbir mi day lu ñu ko lu ñu ko lu kabal bu ñu monte contre moom ñu ko fenn nag euh, avocat yi ñu ngi def lu ñu mën waaye li ma ëppoon solo ci wax ji mooy nañu retenir ni sëriñ bi tawat moo ko bàyyi bitim réew tawat soosu ko bàyyi bitim réew joxe nañu certificat médical bu wone ni dafa tawat tribunal bi luñu ko loolu ba tax ñu doxale nii ñu doxal kon nag ñu ngi leen di yëgal ni waa réew mi ak waa bitim réew na ñëpp xam ni lépp lu dal sëriñ bi nguur gi ñoo ko ko teg je je les je leur tiens exceptionnellement responsable pour lu ko mën a dal nañu xam ni sëriñ bi ñi nga xam ni ñoom lañ doon jugé amu ci kenn ku taxaw ni sëriñ bi moom ma sant nangam xew-xew bi ñoom waa justice bi ñu ko defaate enquête yi amu ci benn bu wone ni moom sëriñ bi laale na ci loolu mbir moomu yëgu ko joxewul ndigal xeex bi xeex nañ ko ba noppi yëgu ko te loolu tribunal bi ci boppam xam nañ ko ndax reconstitution des faits bi nga xam ni defoon nañu ko wane woon na ni sëriñ bi yëgul woon loolee amoon ci buntu këram kon ma jàpp ni euh, mbir la moo xam ne daal euh, baax na ci àddina bi xam ni ñu ngi ñu teg nañ ko loo xam ni teguñu ko fenn waaye nag ñun ay républicain lañu li tribunal bi dogal on en prend acte ñu ngi ñaan ak dal te xam ni euh, euh, lu ci war danañ ko def avocat yaa ngi fi li ci war danañ ko def bokki taalibe yi ñu ngi leen di ñaan ak dal nañu dal te xam ni Euh, ay dogal kenn mënu ci dara te sëriñ bi lim ñu jàngal mooy ak dal ba tax na euh, loolu laa amoon ci lu may wax nañu yem ci ndigalam yi mu ñu bàyyee mooy màggalug sëriñ tubaab yi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal bu ñu leneen perturbé nañu toog jàpp sunu njàmbur te dëgg